saa yi ñu ngi sant Matar moo woo dama jënd seras social sëñ Matar Dieng social moom moo woo dama jënd nañ daje ñëwal sama kër ñu dem ci daralu ndindi bi mu fàggul nag yi yóbbu nag yi ngeen gis yëpp bi mu mujj jënd léegi daanaka ay million la ko waaw waaw mu mujj jënd nag yëpp sëñ Matar ko jënd pour yóbbu ko ci bis sëñ sëñ sëñ sëñ Abdou Latif Diène xalifa Mame Cheikh Issa Diène kon sëñ Matar Diène am nañ ko amal nañ ko sant ndax bu defee lu baax sant ko wàññiwul dara ndax lii mu def yëpp taalib yëpp ko def waaw wàcce na fa léegi di di tonu saaku ceeb waaw daanaka juróomi yëkk mi ngi fi juróomi yëkk mi ngi fi ak gileem waaw te day dolli waat te day dolli yóbbu ko ci ñaanu sëñ sëñ Abdou Latif Diène fekk doyul moom doon bàyyi kon daal sëñ Matar Diène yàlla ko yàlla

ngir nga maye ko xam nga lolu fa la ceriyam fa la ceriyam yam kon sëñ kon sëñ abdou am na la allah masha allah allah jenn yaram sëñ ma tar jenn kuréel social masha allah lii lépp mooma de waye nak neena defu ko defu defu ko dara ngir day sante rek di sante rek sëñ abdou jenn ndax teranga ju ne sëñ abdou defal na ko fu abdou jenn fek nako ko fa allah dëgg bi mooy juróomi yëkk bi bi daanaka rek def na ci un million yeneen nag yi toirkal la yëpp macha allah boo ci xool rek suur na fees na dell laa la si benn yaram bëgg nañ de njëriñ nag yëpp am nañ la am nañ la jukkal waaw waaye nee na lii jublu ci dara du dul sant rek sant la in sakartumo la azidannakum ni ko suñu borom waxee ci alxuraan nee na ci loolu rek lay nekk moo tax lii lépp tey mu defal ko kan cibliti jenn jàmbaari maam Cheikh Issa jenn ji macha allah macha allah macha allah day yëg te suñu mataar jënd cour sociale sama waaj jàmbaar nga de dongo la ñor sagu yoonu kër maam Cheikh Issa jël na ko loolu dem dama koy wax man sagu yoon sagu yoon yi alaaji góor a wax Cheikh Matar jenn cour sociale ci jëf ji mu jëfal ci jëf ji rëy na jëf ji moom suñu saa teg na ci bësam bëtam yoom Cheikh Issa ko fay Serigne Touba di Cheikh na def na jëfit kon nag ñu ngi koy basaleeg borom jenn rek xam jenn àggali yéen amiin lim naa te ko te bëggoo liggéey joonu si ay saa yàlla na ci liggéey lu ko amiin amiin amiin ah moom kay jëf ji kenn wérante ko mi ngi nii am kenn du kenn du gis ma ne naa gisuma dara lii moom juróomi nag yoo xam ne si yëpp benn wane mën naa boot morom ak gëlëm goo xam si maam foo ko foo ko wàcc ñu xam gëlëmu tukkal ak tukkal loolu moom sëñ Tuubaa ak Seex Isaa rek moo ko mën a am euh, sëñ Matar mi uh-huh. def na ko ci euh, yoon wi ba ba ñëpp gis ba ñëpp xam ne maam jëf na yoon ak Seex Isaa jërëjëf sëñ Matar yal na sa borom yàggal sa fan guddal sa yamul ci yamul ci ceeb bi rek de yamul ci nag yi rek de dix tonnes ceeb la indi sa kër ga léegi boole ko ndox yi waaw আর ইয়াটো আর আর আর দুগল আর দুগল alhamdulilah. taxal taxal sëñ bi xool teraanga sëñ Matar Jenn cour sociale moo fi di lii sëriñ Matar Jenn cour sociale taalibe Cheikh Issa Jenn moo fi di teraanga yi ñeenti juróomi giléem la ak ak benn nag

dana jox sëñ siidi sëñ siidi borom gëlëm gi seeraas Amin. Mm. Amin. Mm. Mm. Amin. Amin.